yaa sa personnel bi nga nekkal ak sa action di sant mboolem ñu fi teew li nga wax daanaka jeex na wax bépp parce que li nga war a wax yëpp daanaka wax nga dañ fee ñëw suñ tuur ndigalal kilifa excellence Pate Diakhaté mu nekk doomu dëkk bi affaire bi metti ko mu am Sénégal mu dégg ko metti ko dëkk ci dëkk bi dégg sëriñam joxe ndigal di sëñ Moustapha Bassirou di ñaan mu yàgg fi loolu te wér def participation muy doomi kon su nee eh, di Sénégalais eh, bokk ci réew mi am fi njaboot am fi lépp moo tax mu yeble pour ñëw fii fi yow yebal doomu Xaalib Jaxate ma nga nee toog ak Ibrahima Ndiaye ki nga xam ne moo yor liggéey bi mooy coordonnateur bi nga xam ne moo fi nekkal yor liggéey bi seere ko fi ñu ànd ak délégation bi ñu àndal ñëw teew fi ngir joxe participation di ñaan ci jàngoro bi nga xam moom la fi yàlla indi yàlla jeexal ko te jële ko amiin te yàlla man na ko ndax yàlla lu mu doon lu ne eh, yàllaa ko sàkk lu mu doon lu ne yàllaa koy dogal dogal boobu nag ñu ngi ñaan jullit yëpp ñëpp ñaan yàlla jële ko ci réew mi jële ko ci Sénégal gépp jële ko ci réew mi jële ko ci àdduna bépp ndax foo àdduna nekk rek doomu Sénégal nga fa di wut lu mu indi ko wala lu mu yóbbu ko rek kon bu ñaan na ñaanaleen ñëpp ndax siin la amoon te sori na te doomi Sénégal la ko feneen am na fi doomi Sénégal la ko kon loolu moo tax El Hadj Pathé Diakhaté ne participation ak di ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa yàlla jële fi jàngoro bu jeex tàkk kenn bañ ci koo dégg fenn mm. ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di la sant di la gërëm di sant taxawaay bi mm. di sant ministre euh, de la santé di sant ñëpp la ci turu population moom naka jekk ba feebar amuti loolu laa santaane guddi ak bëccëg ku ñëw këram rek xam ne li muy dundee ak li muy dundee ak ñi mu nekkal mooy set di sol lu set di raxasu ba set di lekk lu set moom lay wax saa su ne moom moom lay digle saa su ne avant feebar bi ñu bi faa bi dikkee ne mu gën koo doy mboolem lu di ay matuwaay ak ñi mu àndal ak ñi nga xam ne nekk na moom lu ci war ci matuwaay ak euh, sensibiliser lépp santaane ko ñu di ko def kon daa daanaka loolu mooy li nga xam ne moo fi nekk ñun ñii ñu ngi dugg ci kër yi di sensibiliser nit ñi di leen wan na ñuy sete di leen jox ay produits yu ñuy mën a diw seen doxal lépp ah am na ci loo xam ne lii ah saa yi waaw kii mi ngi nii mi ngi nii moo ne koy am waaye dina ko jox ñu koy diw suñuy loxo ngir di lekk lu set di dugg fu nu mën a xam loolu ba mu la ko dalee wax yàgg na lii indi ko mu gën ko yor ñu sant ñëpp di gërëm